intersyndical bu regroupé liggéeykat yu nekk ci AFTU te ñu duppee ko G3 jot na mu ngi ñaaw ñaawlu ñàkkum respecté protocole d'accord bu ñu xaatimoon ak CAPTRANS ci teewaayu kilifa yi ginnaaw grève bu ñu amaloon fukki fan ak ñaar ak fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñu génn Amadou Samb. CAPTRANS boobu Ndongo Fall daf joxe ay instruction di wax ne diw ak diw ak diw. bu ñu liggéeyee ci réseau AFTU te xamuñu ñooñu lan la def lan la def moom mooy c'est parce que ñooñu dañu bokkoon si ñu doon laaj seen àq ak seen yelleef coordonnateur intersyndical boobee di artu kilifa yi nii bu agissement yooyu de dakkul dañuy demaat ci mouvement di wax ne dinañ delloo buum sa mbooy mbooy mooy dinañu grévaat wala ñu sitting avant tout aviser population bi parce que li tax sax boo gisee ñuy def attaque yooyu population dakaroise la ñu yërëm école yi ngiy ubbi te cette fois ci bés bu ñu nee dañuy dem grève grève illimitée lay doon dootuñu wax 48 heures ci ndaje bu ñu doon amal profito nañ ci ngir bëcc seeni boolu jàmbat bokk na ci ñu amal audit financier bu aftu ñu wutal liggéeykat yi ay contrat waaye te ñu defal leen promotion interne.